ndaysaan grand combat baa ngongu Tonnerre a ngi noonu féete gauche gin féete droite arbitre baa ngi leen de Sitor soufflé na eh Tonnerre bu Ndakaaru Tonnerre bu Ndakaaru Saourou Fall la koy menacé waaye gin Matar Ndiaye koy menacé Matar nag démb neex le na démb sal bala nax ndax tey nax Saourou Fall. Babacar neexul ah démb daan na de. neexul neexul ah Matar daan na sa jël bi ah waaw Zale Ngong borom Pikine borom ginnaaw raay borom sab waaye boo xoolee fausse garde la teg moom Tonnerre xalaat naa bu ñu jàppante Talla Ndiaye nga gis lu doy waar waaye Ousseynou Ndour Talla sama caay jooy coow ci réew mi caay yi ñëpp ak ma koy laaj Ousseynou borom marché ti leen tey lay anniversaire nuyu naa ko Serigne Ndeye la Diouf ca Réfane Ousseynou tuuti yaay Sarr moom nga ne day ngénte caay ji moom laa ko tudde tuuti yaay Sarr. depuis Espagne di ko nuyu di ko ziar nee na day ngénte caay ji ma ne ko jëlal tur wi Talla sama caay ji loo ci wax. ba baax na caay ji démb lañ ci yëngal. moom la Sénégal yëpp di coow. lañ ci yëngal démb doy na. waa Espagne ak ma koy laaj eh daw na jëli ko tooyoo ko doon sàcc duñ gis ko génne ko waaw damay nuyu tamit waa Dubaay Gambie ak sénégalais yi nekk Dubaay tey bëggee Babacar di bëggee Leewtoo TV waaw maa ngi nuyu ñëpp di balu ñëpp ak Talla Ndiaye. weeru koor bi day teru taala ñu woor yi kon ku ñu tooñ baal ñu àq ku ñu tooñ ñun baal nañu la yal na yàlla jéggal ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke weeru koor réew yal na fi yàlla saxal jàmm waa yal na ko saxal sax ci àddina bi nag waawaaw waaw jàmm wóor ñëpp la ñuy balu àq waaye ñoom ñaari mbër yi moom ñu nga ca ay wa defante leen samp leen démb bi yàggalu ñu fi de déedéet diggante Ada Fass ak Onde la fu dañoo ñëw wanante fulla ak fayda bëre mu jeex kon gin yaak Tonnerre dem leen ci yow mii di sëgg di jàll Talla Ndiaye lu lay yoot Talla am na lu lay yoot wala daa am looy yoot ee eh, taw na jëli ko dafa sori Tonnerre wala daa sori daa sori roofoo taala li yoot maalum mbaa jàmm la jàppante nañu nga ràcc jàpp ràcc a ngoogu gin moo tax lee du arrangé Tonnerre waaw ndax gin moo gën a gudd boo xoolee teen taba tar na de taala njaay ey waay weeru koor wa na waay weeru barkeel weeru ngëneel waaye bar bi bar bi de loo ci mën a dégg moom xam naa daal ku doy waar la soppee Babacar yi fan si club Babacar bi nuyu naa leen ñoom grand lay Cédric nuyu naa ñëpp ñoom ci seen jigéen Baye Sall ca Paris mu nga ca biir groupe WhatsApp boobu fan si club Babacar ba fan maa ngi leen di bëggee di ñaanal ñëpp jàmm di leen balu ak ni ngeen ma bëgg rek billaay nu ko raw laa bëgg yàlla xam na ko eh taanu nga daan na ko oh Soner ñàkk na taala la mu doon def taala la mu bëgg a def man ta sotti Matar Ndiaye affaire am baax. Oh, li mu bokkee rek neex na Matar Ndiaye lu ko dal. day xool day xool Matar Ndiaye sa koor gi dina neex waaye taala Ndiaye Soner li mu def mbër ko def am njool nga ko njiin waa ji ko mu dem jaaxaan taala Ndiaye taala dañuy woor. Talla ndax di nga woor. Babacar maa ngi baal ñëpp ak. Talla baal naa ñëpp ak man. Espagne États-Unis Afrique du Sud góor a sec. maa ngi maa ngi bëgg toppal ma lébu ya xoolal ma lébu ya waaw dafa lu la neex sa koor neex na Talla koor gaa ngoog. Talla Ndiaye tey la woon 6 mai 2019 Talla Ndiaye Assane fi woote woon. gin bu yoof Tonnerre bu ndakaaru waaye Tonnerre la mu def kenn du ko def am njool nga koy dori dox ak moom waaja puus ko mu daanu ca biti Talla Ndiaye waaye Talla reer tàggoona añ tàggoona ndékki tàggoona Talla xam nga la fi desam xadda fi des ak ndagu waaye Talla golo ngi ay waay golo reer tàggoona oh golo li ma naqari waaw golo li ma naqari neexuma golo naqare waay waay waay añ añ añ añ añ ba tàkkoon na ay golo eh, añ ba tàkkoon na ay golo man añ bee ma métti ay golo <laughs> golo ceebu jën bu ñu roof furuf bam bëgg yaay suul waaw pusante ak nawe waaw ak joxumba ma ginaaru guddi nag oh oh ginaaru guddi ay waay waay waay ay golo xam nga babsu waaw góor la damaa gis waa joo xam ne toog na ñaar fukki at mu sotti sóoli. déedéet waay waa ji daa jaar ci marché bi ñu yëkkati saabu kaan yi. waaw mu jékki-jékki na te waaw fekk ji. neex na lool. dañuy pause. Ah, waaw dañuy pause làmb ji neex na lool. waaye góor la looy may internet. ah li ma leen di may leen rek. wàccal ma xool. cay cay. tig tig rek gis na waaw. eh waay eh waay. eh. rek ji waaw gin gin gin gin gin gin gin gin wili wili golo ah cay bopp cay golo su xola wàcc nga ma wàcc wàcc ko yàgg la maa la dàq wàcc su xola wàcc golo li may wàcc su xola wàcc nga ma xola wàcc su xola li ma golo ah. dañuy woori taala taala mer baaxul taala ah. taasukat ba nee na ah. mer mu bari ñàkk la ku mel karameel yàlla kon nañuy kontaan di bég di bége waaye xam nga lii ku fi jaaram Arafat bu rëg-rëg xoolal lii ci Juventus maillot bii la Juve di footballé déwén bu soobee yàlla Arafat nuyu naa la Ousseynou Ndour maa lay nuyu di nuyu ñëpp ñu may sifir mais golo ngi golo ngi kontaan affaire combat benn match nul. waaw 30 combat 30 combat benn match nul. loolu laa am combat bi ba ko rek jàmm.